bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu di nuyu mbokki julli yépp di jiital ci nuyo bi Sëriñ Muntaxa Mbàkke yal fanam di nuyu mbokki auditeurs online Touba monde bi kàddu gi di bàyyi fii ci Touba Milan studio Serigne Mountakha seen mbokkum taalibe Salih Mbacke Seck nekk ci mikoro bi Baye Fall Thiam ci wàllu xarala gi ñoo ngi nuyu. Sering Ibrahim Anjay mi directeuru programme di nuyu Sering Mahmadan Bakke mi directeuru télévision bi ak mboolem technicien yi ak mboolem képp ku ci jàpp ba lépp jekk ñu fas yéene ànd ak yéen ci seen waajtaayal ñuy dogal ngant nag boroom xam-xam yi nekk ci daara ji mu am benn bind buñ bëgg na traité ak yéen ngeen jariñu ñu nit ñi koy nafara mën a jariñu bind bi mooy guddik sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam lan mooy gàmm ak ñan ñoo njëkk a gàmm nenañu sayyiduna muhammad di khairul khalq alayhi salatu wassalam mo ñëk gam ndax da daan wor bisub altine ñu laaj ko ni ko lan mo tax ngay wor bisub altine mu ni ci la judd ma di ko wormaal ak di ko màggal bu fekkee ginnaaw yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci histoire saxal nee nañu ku ñuy wax abu saïd moo njëkk gàmm imam suyuti noonu la ko andee بشكل كبير ومنظم ci forme bu ñu xam bu ñu organiser bu leer moom Abu Saïd daanañ ko wooye xaakimu irbil daanañ ko wooye it silaaxuddin ak malikul mustafar mi ngi dëkkoon iraq dëkk bu ñuy wax Irbil Irbil nak mi ngi ci chamoyu Iraq bo xamul Iraq moy dëkk bi nga xamni wala Saddam Husseinu dëkkoon motax serigne Moussa Ka di wax naan Abu Sa'id mo ñëk gam ci sulu sulusala mo ñuy ram mbeur la mu reuy mu nekkan irbil ba melni mbeur mu reuy mu nekkan jurbel mu neena ci xarnu ñettel ba ci la ñëk gam bi bim njëkkee gam neena ñu ki ñëk talif téré bu ñu de mi ngi tudd ibnu dihya téere ba ma ngi ko tiddoon kitaabu tanwir fi mawlidil bashir wa nazir bim ko taalifee moom abu said ijaazal na ko alfu dinaar alfu dinaar am na am mu allifuuna yoo xam تعرف نن تجمع كوني وخ يوسف النبهاني تعرف نتي تير بني وخ جواهر النزم جواهر النظم البديع في مولد الشافعي شمس الدين ابن الناصر الدمشقي تعرف نتي تير بني وخ مورد صاوي في مولد الحادي أك جامع الآثار في مولد المختار أك لفظ الرائق في مولد خير القلائق أمنا يوني فاتمي يوني نجك غامو كون فوفا أمنا اختلاف في أتم 498 في الدولة فاتمية am nañu wax loolu ñoo ngi nekkoon dëkk bu wax Égypte al Azhar bi nag Égypte yi ñoo ko taxawal ginnaaw loolu it am na ay mag yu baax ay nit yàlla yu dëkk ci Sénégal gii ñoom it taalif nañ ay téere yu bari ci gàmmu yu bari ci gàmmu comme ni ko yi daan taalifee ku ci mel ni imam Buseyri yu ak nit ñu baax ñu mel noonu taalif nañ ci ay téere boo ñëwee fii ci Sénégal ñu gis ni maam Alxaaji Malik Si moom it taalif na ci ay téere yu bari ndax moom nee nañu bam njëkkee gàmmu moom ak maam Rawaan Ngom ñoo ko àndoon benn kaamil la njëkk a gàmmoo waaye daala gàmmu moom ak kilifa yu ñuy wax maam góor saane ñang ak sëriñ Abdou Hamid Kan ñoom ñaar ñi sax nee nañu ñoo ko magoon maam góor saane ñang na ko dix ans Abdou Hamid Kane mage ko douze ans maam alaaji Malik taalif ne ci téere bu ñuy wax laamiya muy laqad haaja ak abada buruq ak nuuniya ñu koy wax alaya dahdu ak miimiya di xilaaf zahab moom it taalif na ko ci ak yeneeni téere yoo xam ni taarif na ko ci moom Abu Saïd yiit nim daan gàmmoo daana dajale mboolem dëkk ya wër Iraq yépp dëkk yu ci mel ni Baxdaad dëkk bu ñuy wax Muusal nga xamni mi ngi ci côté Irbil ak yeneen dëkk yu bari daanañ fa dajé histoire saxal na ni mom guddi gam alal ju bari la ko daan financer ak yi njariñ daana ci may ay yére daana ci may ay gëléem daana ca def alal yu bari daana it dajale ay boroomi xam-xam yu mag adadun kabir min al fuqaha wa suufiya wal waaz wa shuara daana dajale ay fuqaha aki aki yu ragal yàlla aki waaratekat ay ustaas ak ñoo xam ni ci wàllu shi'ar lañ mane wala way arab ak ci làkk boo mën a waye ñii Abu Saïd daana leen dajale ci guddi gàmm nee nañu guddi gàmmu moom daana ci financé lu tollook ñetti téeméer alfu dinaar di mablax bu kawe nga xam ni loolu lépp daana ko def ngir jëmmi Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam moo taxit ba tey jii aw turam fuñ ne gàmm rek xel yëpp dana daj Abu Saïd mooy maliku musafar Sëriñ Tuubaa it ni mu daan gàmmoo fii ci njaareem la daan gàmmoo te sax li ci gën a yéeme daana wax mag ñi naan leen buñ xësee weesu màggal nañuy waajal gàmmu gàmmu moo ko daan wooteel boppam ci njaareem ngir fonk gim fonkoon seydina Muhammad alayhi salaatu moo tax bu guddi gàmm musaana jot mooy xelil boppam ataaya ja mooy xelil boppam kafe ga ngir fonk gi mu fonkoon gàmmu ngir fonk gi mu fonkoon Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam tey daana wax naan ñi seeni baat neex nañ yëkkati xasida yi ñi seeni baat naqar yi nañ noppi daana ko wax sëñ Masamba nañ noppi wala suñ noppiwul nañ wur ay yar bàcc bàcc leen allahu akbar cey moom it na ci ay téere yu bari ay téere yu bari taalif na ko ci moom sëñ Tuubaa lu ci mel ni raaya ak mawaaxibu naafia ak midaadi wa aqlaami ak jasbul quluub moom sax daawul bind ab téere te téere ba jeexul te gàmmuwul ci Seydina Muhammad moom téere bu mu bind daana ca gàmmu ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam kon mbokk yi nu ñuy gàmmoo nu ñuy gàmmoo moom lañuy ñuy bëgg leeral nu ñuy gàmmoo waaw nu ñuy gàmmoo kayfa naka la ñuy gàmmoo ak lan mooy gàmmu lan mooy fadilatul mawlid ba ci njëkk mooy bég bég ci guddik Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ci guddi gi nga xamee ni ci la gane jamono nga xam ni ku ci bég يلا بيجل بإلى يوم الدين بإلى يوم الدين أبو لحب كانوا كنا خمنكو مم أبو لحب كانوا كنا خمنني نيتوك صور الله بالقرآن من كيتك بنان كتب يا أبي لحب وتب ما أخنا إلى آخر سورة benn nitu yàlla gis na ko ci gént ni ko maxaaluka lan mooy sa mbir yow abul Lahab mu ni ko fi naar man mi daal maa ngi sawara waliyaasu billah waaye nag guddik altine saa jotee guddig juddug seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam saa yu jotee danañu oyofal mbugal mi ci man dégg de nitu yàlla gi ni ko lu tax mu ni keroog bis bi mu juddee dama caa bég bis bim ganee jamono moom alayhi salaatu wasalaam dama caa bég kontaan moo tax bis bi saay yu jotatee yàlla dima ma yalla di oyofal oh, iya, mbugal mi ci man waye ba tay ji ñu ngi mbugal kon motax yow mi ci contane jappal ni yalla dana la bégal tey bokk na ci ngeneelal gamu moy qiraatul mawlid ñay gamu di al waqi'iyya li xew ci bis bi di ko ak di jangat diko jang ak diko jangat ak diko jangal nit ñi le xew ci guddi gam xé di ci xewon ak yonante bi bi mu ganee jamono la xewon sawara wa daan tak ay at nungu ta fay ak pale kisra ba nga xamné dafa daan won ak xéet ya nga xamné dañ ca xewon yooyu borom xam xami diko di ko jàngale mooy qiraatul mawlid ak it itaamu taam di leel ñey gàmmu ca guddi ga di leel ñey gàmmu ca guddiga toggal say ñam wutal ndox mu sedd wutal ay fruits wutal tàngal jox ñay gàmm ca guddi ga loo ci mën a financé ci wàllu xaalis doyul loolu lépp day dugg ci itaamu taam na nga bégal ñay gàmm na nga bégal ñay gàmm te bokk na ci ngëneel gàmm mooy as zuhuur bi zuhuuri nuurihi maanaam nga bég ci feeñuk leeruk Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalam. nga bég and ànd ak kontant guddi goge du du du guddi guni mer te guddi mbégte kenn du ca nelaw tay xolel bu beusa jot and ak ngay gam di xoole motax serigne touba ni won fa kullu man anfaqa fi مولده المشرف ما لم بقير سرفي ولو بقدر الدرحم ولو بقدر الدرحم سرين تبانينا نعم. كيب كوتي ديباسي دارا كيب كوتي جوخي دارا مو خم الله mo xam lu ti doon nga xam ne da nga koo dépassé ngir jëmmi yàlla ci lu nekkul ak yàq nekkul ak pokkaréewu nee na donte ab dërëm la sunu borom daa la ko fay su bis pencaa su bis pencaa daa la ko fay moo tax fa man yuazim mawlida nabiyina babil huda فلا يحاسب خداء عند الحساب المفحم nee na képp koo xam ni màggal nga guddik juddug sayduna muhammad yonente ba nga xam ni mooy baabul xudaa mooy nabiyu rahma yonente ba nga xam ni mooy tayibul xalbi yonente ba nga xam ni mooy inshiraahu sadri yonente ba nga xam ni mooy layinun yonente ba nga xam ni mooy karimun yonente ba nga xam ni mooy sharifun yonente ba nga xam ni mooy xaakimun yonente ba nga xam ni mooy aadilun yonente ba nga xam ne mooy mooy juud al juud yonente ba nga xam ne mooy xaliim yonente ba nga xam ni xaayatu tawaddox dëgg-dëgg toroxlu ci moom la dëppee ci moom la dëppee sëriñ Tuubaa nee na képp ku màggal guddeem ga fala yuxaasabu xadaa ëllëg bis penc yow kenn du la réglé kenn du la mugal xinda xisaabil mufhimi ca isaab ja nga xam ni mooy wedam loo ku yàlla bind wedem moy ko xamni munta wax dafa lu gudi gamu serigne touba neena fa kull man qad hadara mawlid afdali alwara muazziman mubashira bi sukarin aw laxami nee na bu fekkee mënoo jàng mënoo bokk ca ñi génne seenu ñakk di joxe mënoo bokk ca ñay bég mënoo bokk ca ñay financé gàmb ga moo xam ñay joxe baas la moo xam ñay joxe ataaya ji ak meew ma kafe ga nee bu fekkee yooyu yëpp mënoo caa bokk nee a teewal ndeysaan allahu akbar allahu akbar chetttt na nga teew teewal rek fa jànge ñëwal nga boof ci seen wet tey teew tey diglu nee boo ko defee danga bokk ci ñi yàllay tëral ëllëg teew ci jataay ba rek dani sax guddi gàmmu loo ca def mu néew mu bari borom bi tabaar dana la ko fay bi sukarin donte aw bekk suukar la nga jël ko jox ko kay gàmm wala nga def ci def ci ndox yëngal jox ay nit ñu naan wala nga jël bekk suukar jox ñey gàmm ñu boole ko ci suukar seeni suukare donte aw bekk suukar dana la ko fay aw laxamin donte dogu ndawal moo xam ginaar ak loo loo man bul xeeb ma tax guddi gàmm bu ñëwee bul xeeb bul xeeb benn ginaar boo amee sa deux mille francs gindal benn ginaar nga jox ñuy gàmm ngir jëm yàlla ñu booleel la ko ci reeru gàmm soo ko defee de bu déwénee da nga am lu ëpp ab ginaar wala nasimi wala nasimi nee na fa innahu xad safira bima yudimu bashara wala yalaaqi darara يوم اجتماع الأمم يوم اجتماع الأمم nee na képp koo xam ni tuufu na ci guddig yorante bi jariñu na bu ëllëgee du dajeek loraange mukk bu ëllëgee du dajeeg alkani mukk nee képp ku joxe aw ñam wala suukar danga bokk ci ñi tuufu tuufu mooy ku am njariñ moo tax mu ne fa innahu qad safira kookee joxe aw ñam dana bokk ci ñi tuufu dana bokk ci ñi am fay dana bokk ci ñi am ñi am ngëneel nee doo dajeeg loraange mukk keroog ki bis ba nga xam ni ci la xeet yépp yi daje ni néew doo ci bokk doo ci bokk mukk waxaa na it nii yow mi koy màggal nanga ko màggal ci sunna nee na boo ko màggalee ci sunna sag dugg aljana lu gaaw la ci yow lu gaaw la moo tax kon ñii contre gàmmu dañoo déggul li Sëriñ Tuubaa wax waaye dane képp koo màggal ci sunna ci sunna da dugg aljana immédiatement ñu ni ko waxa mu ni taazimuhu bi sunnati yaquuduna lil jannati bi isdihaadul minnati li mukhlisin mu'azzimi de nga de neena kep ku ko magal tek ko ci sunna ak sharia neena da nga dugg aljanna ci lu gaaw te guddi gam goge mo lay wamat ba tabal aljanna ta ta, ta aljanna ji neex ngay am moy jannatul firdawsi motax kon ñu nan bid'a la من البدع على خلص أولي فبدعة مرضية أكرم بها من بدعة من بدعة لم تجحد كن لا بدعة على وحال الشيخ تيان وخان رك نيكو واو واي بدعة يرفت بدعة يا گرم بكرة بدعة يين ترال كون ريك واي بلا بدعه nga xam ni mboolem àdduna bi dëkk yu bari dañuy gàmmu misra di Égypte dañuy gàmmu iraq dañuy gàmmu yaman dañuy gàmmu iran dañuy gàmmu Palestine dañuy gàmmu Oman dañuy gàmmu Bahreini dañuy gàmmu benn réew rek moo site ni gàmmu dafa xaraam te mooy dëkk bi ñuy wax arabi saoudia al arabi saoudia te sax li tax ñu wax ko seeni pexe ak seen ak seeni intérêt yoo xam ni bëgguñu ko leen ko yàqal ndax li gën a garaw mooy seen mamlaka seen royaume boobu ñuy màggal ak di ko gàmmul du dégg benn borom xam-xam bu ci wax du dégg kenn ku ci wax waaw mbokk yi nag guddig Seydina Muhammad nekk fi ay jullit ñu ko gëm di ko gàmmul nga dégg ñuy wax di kaas di ci wax lu de kon mbokk yi loolu yooyu jar nay bàyyi xel jar nay bàyyi bàyyi xel bu baax a baax a baax baax Sëriñ Tuubaa nee na fa kullu man anfaqa fi mawlidihil musharrafi ما لم بقير سرفي ولو بقدر الدرحمي وحتي جنوني فمن يعزم مولدا خير البرايا أحمدا فكشهيد شهدا بدرا بقير وحمي موتاخ سرين تباني faman yuazim mawlida xayril baraya ahmada fa ka shahidin shahida badran bi xayri waxami badran bi xayri waxami nee na képp koo xam ni màggal nga guddeem nga mel na ni ku shahid te kenn ku ne xam na daraje shahid shuhada ñi ko yàlla defal direct aljanna direct aljanna Sëriñ Tuubaa nee na ku màggal guddeem nga mel na ni ko shahid mbokk yi lii xeetu Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam dong ko mën a am dong ñook ko mën a am nee na waat fa man yuazim mawlida nabiyina baabil huda fala yuxaasabu xada faxtari man wa azimi faxtari man wa azimi nee na képp ku màggal guddeem ga guddig yonente ba nga xam ni mooy baabul xudaa nee na kenn du ko isaab ëllëg kenn du ko réglé dani yow mi gàmmu na nga kay gàmmu yow mi gàmmuwul na nga warmaal it kay gàmmu allahu akbar dégg de waxaan na fa kullu man xad xadara mawlida afdalil wara muazziman mubashira bi sukkarin aw laxami mu dëppoog bi mu wax naan fa innahu kaman xadar cey yowma xunanin wa sabar wa yowma badrin wa nasar xayral wara mufahimi nee na képp ku teewee guddeem ga am nga yoolu ku xare xunayni te kenn ku ne xam ne ni xare Xunayni xaswa Xunayni xare bu métti la nee na képp ku teewe guddeem nga guddi gàmm képp ku ko teewe am nga yoolu ku xare Xunayni ba noppi muñ waaye am nga yoolu ku xare Badar ba noppi dimbali cey allahu akbar képp ku teewee guddeem nga fañ koy gàmmoo képp ku ko teewee nee na borom bi dana la gërëm borom bi dana la bégal ëllëg moo xam nga joxe suukar wala aw ñam fee képp ku ko teewee am nga yoolub ku deman xare Xunayni ak xaswatul badril kubra kon mbokk yi lii xéewal yu màgg waxaan na fa neen ni ixyaau mawlidil bashir yaxmil duyuur fihi shifaau li sudur li kulli haadin yantami cey nee na ku dundal guddeem ga sun borom dana la aar ci ak njaboot goo xam ni duñ ràgg duñ tumuranke duñ feebar te yàlla dana naatal sa kër nee na képp ku màggal guddeem nga feebar boo aman tawat joo aman suñ boroom dana ko saafara tey dana saafara dani góor yépp yi nga xam ni dañuy màggal guddeem ga loolu sax am na benn xikma bu ci nekk boo xam ni yow mi feebar wala yow mi tawat jëlal boolu ndox teg ko ci digg ba ñi gàmmoo ñuy jàng moo xam ak luñ mënti jàng moo xam alquran la moo xam xadis la moo xam xasaid la moo xam burdu la moo xam hamshiye la ak lu mënti doon jëlal boolu ndox teg ci digg ba ñi gàmmoo buñ noppee tawat joo ko faje mu faj ko loolu ab secret la ci guddi gàmm te nit ñi xamuñu ko wallahi bo noppé tawat joko faje dana ko faj dana faj bopp bi met, dana faj bir bi met, bo amon aajo boko ko yalla fak sa aajo motax yonante bi alayhi salatu wassalam leppam jariñ la leppam jariñ la motax taxoon seigne touba don ko wax nan ahmaduna rahmatuna hamiduna, ni'matuna mahmuduna farhatuna wal juudu musri diyami nee na cëy sunu sang ba cëy sunu yërmande ja cëy sunu santaakon ba cëy sunu xéewlaakon ba cëy suñu mahmud ma cëy sunu mbégte ma والجود مثل الديام موي تاب غودول جيخ موي جيج غودول فر موك الى يوم الدين الى يوم الدين موتاخ نا مو جولي تي موم سلمال تي موم داني اني اخاتب الجميل تاي جي نا ماغي واخ سيدنا محمد مصليا على الرسول تاي جي ماغي جولي تي يونت مسلما على الوصول tey jii maa ngi sëlmal ca ka nga xam ne mooy àggale gaay ci yàlla bés bi ak kuréelam nga fi kalimi allahu akbar allahu akbar kon mbokk yi lii lañ andi woon ci waajtaayal guddi gàmmu gi di ñëw ñoo ngi sant bu baax bay isa mi nga xamni mo ñu boole ci liggéey bi ak borom yaram mi nga xamni mo leen coordinateur bi yal na barke lepp te nungul ñu sunu yoolu gamu te defal ñu tawfeex ak taysir di dogalan ngant ci borom xam-xam yi nekk ci barab bi mboolem akhfa yi nga xamni ñong koy def ñoo ngi koy tuub baax te diko ko yalla yal na yàlla defal ñepp jamm yal na yàlla may ñepp jamm bi jeex seydi wujud sallallahu alaihi wasallam insha allah rabbi bu ñu joxaatee beneen tam rek ndax mo yonante bi liñ ci xamit bari na lol lol ba ag ci ñu def ko ndank par ndank rek yalla yalla barke lepp bàyyi saa noonu dong la aduna ñepp bok ñepp bok li dafa nek ndam lu rafet barab bo xamni ku ne fa daje tidiane khadir layen ñeseen murit nga jël kàddu gi nga ni nañ ko jox serigne salih mu ñëk def mawdo ci guddi seydina muhammad kon ñong la ci sant ñong koy refetlu yalla yalla yàlla fa taxaway yalla yalla samul ta ar la wa rahmatullahi taala barakatuh taala